Euh, bisimilah rahmaani rahiim euh, ñu ngi euh, ziar ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér li mu yéene liggéeyal maamam ci yoon wi suñu borom sottal ko ci jàmm hmm, di di di bég bu baax suñu teewaay tey fii ci jumaa ji ànd ak suñuy gan suñuy suñuy gan yu nga xamante ne ni dañoo jógee Catalunya ñëwoon tourisme ñëwoon Sénégal. Euh, jël ñaari fan nag ne nu ñu def ñu egg si Touba ñoom nag dañoo bokk ci ñiy liggéey ci takk der yi nga xamante ne dañu nekk Catalogne ñi fi teew di di Pedro Oscar Xavi ak Albert Albert nag ci relation boobu lañ amoon ba mu ba mu jaar ci moom ba ñu ñëw ñëw Touba bi ñu ñëwee it euh, ñu dalal ñu dal bu rafet ñu ciy sant bu baax euh, ci ki nga xamante ni moom la jaaree muy sëñ Saliou Diakhaté ci taxawaayam ci liggéey bu am solo bi muy defal sëriñ bi. waaye jaare ci eh, daayira Muxaddamatul Xidma eh, buñ ci tuddee sëriñ Afe Bousso suñu waajur tuddi sëñ jiili rek ñu mën a yóbbaale ñëpp kon nag ñuy ngi ziar ñëpp eh, looloo waraloon suñu teewaay xam naa ñoom it bi ñu ñëwee démb tey wax dëgg yàlla nekk nañ fi nekkin bu rafet ba tey yàlla def ñu am tàggat leen ñu ñuy saytu mbiru diine bokk ci ay takk der kon nag bu ñu fi ñëwee lu ñu mën a def lu yaatal leen yàlla def na bi ñu ñëwee ci suba gi Euh, visité nañ jumaa yi dem nañ ci bibliothèque bi xam naa liñ gis yéem na leen su ko defee ni ñuy def rek mooy jox leen kàddu gi su ko defee ñoom it ñu ñu jàllale ay kàddu wax niñ ko gisee xam naa bala ma leen a jox rek ñu santaat bu baax ci taxawaay yi nga xamante ne nii euh, daayira bi def na ko daayira Muxaddamatul Xidma bi def na ko ba lu mel nii mu mën a am ñu leen ciy jërë ñu ngi leen di wax jërëjëf yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay te nangul leen liggéey bi Eh, nangul ko liggéey waa Daaray Kaamil ndax tamit eh, bërëb la bu nga xamante nii moom ku fa dugg rek xam ne nag da koy jaar dëgg dëgg dëgg ci sëñ Tuubaa ni mu fonkee xam-xam ak ni mu ko liggéeyee eh, waa Daaray Kaamil it ñu ngi ziar ñëpp équipe bi yor liggéey ba yëpp naa buñ ci tuddee sëñ Ousseynou Diattara rek mu mën a yóbbaale ci ñi des ñëpp de maniera resumida decía que de la ciudad de bueno de la de, de Cataluña Cataluña como país, Cataluña como zona de acogida, en que si miramos hay más de la mitad de la población senegalesa que viven ahí. Entonces un honor poder contar con la presencia de Oscar, Pedro, Xavi Albert, eh, que durante su estancia en Senegal han hecho el esfuerzo de venir dos días en Tuba, zona cálida, en un momento difícil. Han hecho esfuerzos para estar aquí. Les decimos casa nuestra, casa vuestra. y es un encanto poder contar con vuestra, vuestra eh, nos gustaría preguntarles cuáles son vuestras impresiones. Estamos ante la televisión de la mezquita que se va a transmitir y si queréis dedicarnos unas palabras, eh, ya, nos diráis. Por la acogida también a, los sheiks, ha sido una gran acogida, un gran agradecimiento y en especialidad a especialmente a toda la comunidad de Tuba por su hospitalidad. Ha sido una gran sorpresa positiva. Y bueno, más allá de, los agradecimientos, también estamos muy contentos y hablo, creo que hablo en nombre de todos de haber descubierto, haber podido profundizar más en la figura de Amadou Bamba y su discurso de la paz un discurso que creemos que es muy positivo, una forma de entender la vida y que creo que tendría que, llegar a más gente, y también por nuestra parte, desde España, desde Cataluña, eh, hacer más también nosotros para conocer las culturas de, las gentes que recibimos, porque al final, como ha dicho antes mi compañero Albert, eh, todos somos del mismo mundo y todos tenemos que que aprender de los otros. Mm, dafa dafa tàmbali di jërëjëfal euh, euh, sëriñ Saliou sëñ Jili ci dalal bi ak sëñ Ousseynou mi ñu dalal ci turu mm, daayira Muxaddamatul Xidma ci turu suñu waajur sëñ Afe ak waa dëkk bi yëpp loolu nag nee na mbégte mu kawe kawe lañu am bi ñu ñëwee Touba waa mbégte mi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem euh, ndax xam na ne moom àdduna moom ñun ñëpp ñoo ko bokk. te ñun ñëpp ay doomu aadama lañ waa am am solo ki nga xamante ni am solo na ñu ñëw fi li muy wane rek mooy danañ gën a jegewoo doomi Sénégal yi dund Catalunya Espagne waaye nag dinañ gën a xamante te loolu lépp buñ ko defee rek danañ xam ne ñun ñoom ñoo ñoo bokk àdduna bi di ay doomu aadama kon nag mbégte mu kawe li ñu fi gis daal kawe na njort lool ba amul sax ay kàddu yu ñu ko mën a génnee. Vemos desde nuestra posición, por lo que vemos en el día a día, en este mundo que ahora las redes sociales hay mucho TikTok, Instagram, Y hay mucha formación islámica que se da por parte de personas que no tienen conocimiento. Entonces, animamos también a, ustedes la labor que hacen a nivel formativo para que los jóvenes tengan una, conciencia real de lo que es el Islam. En este caso, de Islam de Ahmadu Bamba, que da un mensaje que ahora a lo mejor no está de moda ¿no? en el mundo, a lo largo del mundo, pero que creemos que es importante en, boobu mm, sànq mi ngi koy wax ci biir waxam eh, dama ko tëb waaye mi ngi wane ne eh, war naa mën a gën a yaatu war nañ cee gën a mën a jot dafa mel ne loolu la Albert indiwaat nee na fi jamono toll ci nouvelle technologie eh, dafa am nu ñuy wonee diine ñu uteeg nuñ ko waroon a wone ay TikTok am na yeneen application am na yoo xam nit ñaa ngi ciy jaar ci ñu nga xamante ni léeg-léeg sax du ñu du ñu dominer wala du ñu contrôler lan mooy islam kon nag dana am solo liggéey bi ñuy def Touba mu gën a yaatu ñun ñi mën cee jot ndax euh, réere googu ñu réere islaam mu gën a leer ci ci nit ñi ndax loolu it luy dimbalee nit ñi pour ñu xam la waaw donc loolu tamit du lu mën a ñàkk daal lu ñu war a def la ngir mu gën a leer kon nag dafa mel ne kon euh, matt la nga xamante ne lépp ñu ci gën a mën a def nit ñi gën ko xam euh, dana gën a mën a dimbale nit ñi ngir ñu xam seen diine lan la ba du duñu réere buñ ko waroon a def tey niñ ko war a defee ndax li lëndëm dafa bari lii naxaate bari na waaye li ci ëpp solo rek mooy ne nit ñi moom dañoo war a xam jërë ngeen jëf.